koy woy Ibrahima Diouf daf ko wax ne ko Sidi Baram moo de ki nga xam ne moo de yombal mbaay mhm. gaalam gi soxlawul paas dégg nga mhm. mhm. soxlawul paas gaala lu ñuy jiiroo maanaam xoolul alal gaalam gi soxlawul paas xoolul lu ñuy jiiroo kenn du kenn du ko jot lu ak mbëggeel bu doon marchandise la ne la Cheikh Ibrahima marchandise bi dëggu ak mbëggeel moo koy jënd ci loolu ci lañ ko jaayee moo tax ñun nit ku bëgg bàyyi te dëggu oo nañ grand théâtre soo ñëwee nga def fàtte ñett salaatu fàtte dugg ci porte suñ paree ñu bokk tudd yàlla iw buñ fa am yëpp ñu ànd jël ko jox ko Mawlana Cheikh Ibrahima addiya li mooy sababu liggéey bi pour ku ko xamul tey nga xam ko du business mm-hmm. bu doon xaalis lañ ci ut liñ ciy def ñu def ko suñ bopp xam nga ku ku fexe bañ may ba ut juróomi biis juróomi bis yi ay mbokku taalibe ñoo ko may ku ci njëkk mooy Cheikh Mamadou Cheikh Maam Alaaji keroog ba moo ne bëgg naa juróomi bis yu jógee Kaolack ma def ko gratuit def na ma may naa la benn maa ngi koy nuyu sama xarit Issa Gaye ak Moustapha Diop ñoom ñaar ñëpp ay duwaañe lañ maa leen di ñaanal yàlla seen grade yokk ñoom it ñu mànkoo na ma biis buy jógee ci koñ bi maa ko ñoo koy maye yaa ngi dégg Moustapha ñu koy wax Mohamed Gass dëkk Nioro mu xàccu na moom may naa la bis yaa ngi dégg ki ñuy wax bàyyi saaxoo xale yi dem fa mu ne leen may ñu may nañ ñu bis benn bis ma manqué te danaa ko am. loolu ko am. waaw danaa ko am. Mm-hmm. mu jugee kaw la neuf heures wala dix heures neuf ba dix heures la waa Kaolack di bàyyeekoo Kaolack pour ñëw dal fii nii Kër Massar sama kër ñu añ yaa ngi dégg naan yi ñuy naan noppalu. ba heure 19 jot ñu ànd dem grand théâtre dundal guddi gi ba lu soob yàlla suñ paree lépp mu ñëwal Cheikh Ibrahima. Mhm. kon lii mooy grand théâtre gi lii moo sabab. leer mhm. leer na naañ eh, ba tax na di nga di nga taxaw tuuti nga nga zikaral ñu mooy sànq fi nga waxee rek lay tàmbalee maa ngi ko doon tudd sànq si wax ji mooy ki nga tudd muy Baye Amadou Kabara kooku daa yell ju koy sant saa su ne man day wax dëgg yàlla dama koy sant saa su ne ndax. Euh, dafa am baat yu ma wax yoo xam ni ba si suñu patron bii bañ koo bañ koo agressé dafa maa wax baat yu am solo yoo xam ni ba tey dama koo téye mu ne ma carrément bañ koo bañ ko agressé si gàtt rek ne ne ma mustapha waxal sa patron dama koo sopp lool moom bàyyi ne ma waxal sa patron dama koo sopp lool maa ngi koy ñaanal tëj xamuma li tax ma koy ñaanal te xamuma mooy jàmbaar gi mu jàmbaar di jël alalam di ko def si yéen ñi nga xam yéen employé am di fay yi kon kooku noonu di jaan ñaanal nit koo xam ne xamu xamoo ko xamoo ba nit xam ne xam na la muy jël alal sa alalam ba pare di ko def si yow nit ki ba pare li gën a neex mooy gàmmam gi weesu dana ma ba ñu fa jógee dana ma signé tumaat benn télé partenariat yow laay signé partenariat xam nga loolu nit ku su la ko defalee tey yàlla nga taxaw di ko sant parce que xam nañu ñun télé bi ñun li ñu si mën a am xam nañ ko kii su nekk yow partenariat mu ngi lay dimbali yow def animateur bi waaye mi ngi dimbali ki nga xam ne moo nekk si télévision bi kon Baye am yow ñu ngi lay sant bu baax lu ñu la sant rek doyut wax na ma baat yu bëree bëree bëri yoo xam ne du ñu ko wax si télé te maa ngi koy wax sànq damay wax ak euh, alxaaji Moor Moor menn Moor Sey mu ne ma bàyyi am lu mu la dig def ko moo tax ba ne ma moo jël grand théâtre ma ne ma ne du kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal wér ak gudd fan moom njabootam gi yëpp xam naa nag ñun dinañ fa ñëw ndax grand théâtre bi ñuy tëgg moom du gratuite <laughs> ñun moom ñun moom entrée la ñuy def parce que dañuy liggéey ndax dañoo bëgg ñoo ñoo xam ne wax dëgg yàlla comme seen genre gi yéen mais këru diine yëpp lay doon incha allah rabi ñu ànd ko liggéeyal si lislaam ndax yell na nag ñun animateurs yi wax dëgg yàlla ñu am waay bu baax yell na ñu am si kër yu baax yi ah kon nag il faut que ñu liggéey si si côté yooyu noonu moo tax mun a ñàkk waaye bi nga la soppee tuuti may leen si voix bi ndax booba léegi ñu ngi koy ñu ngi koy xaar. baaye gën ci doom billaay ñun nga ñëwal sooraan siri baaramaan baaye gën ci doom billaay ñun nga ñëwal sooraan siri baaramaan futuwaati laxmadi bi ñes baaye gën ci doom billaay ñun nga ñëwal siri baaramaan futuwaati ruul wujud bi ñes jaaxal nga Ibrahima Diouf ka nga doon sañu ñuñ koy wax si di baar amma ruul wujjot bi yaay ilimaan yi mulkook malakoot xatri laranam bi dooma sidi bar amma atil amadi bi ñas bàyyi gën julli ngeen ba dee ku amul sëriñ lab ci way doon sidi bar amma atil amadi bi ñas bàyyi gën ci doom bi laa mu nay gaay déggee naa ci démb mooy tay sirifa amaa dawatin ahmadi bi ñas bàyyi gën ci doom bi laa ñaanal sa daa sirifa amaa mbindeef yaa nga def kuré kuréel ña ngay tettu ay nun wolom sirifa amaa dawatin ahmadi gën ci doom bi laa ñaanal sa daa sirifa amaa ay nun xolom bi ku la yaakaar balaa dellu xaybu yëg ci pays malaw laa sirifa amaa faati la ma tiibi ñas baay gën ci doom ilaa jur nga ñëwal soo ay nin xolom bi ku la yaakaar balaa dell xaybu yëcci ci doom ilaa jur nga ñëwal soo daan siri baaram ñoo booloo ba new ga ca xatri jàpp dajeeg samba sidi di bi ñas bàyyi gën ci doom bilaay ñun kawraay ba ndaw lu neex a xool sa turu njëkk njëkk wañ la daan wooye bokkul ak baraam li moo alak fo dee xam yi weddi baar amma ma diini ñas bàyyi gën ci doom bilaay ñun nga ñëwul soodaan si li baar amba ma coobi sax ma ca gëne sal xakuma ci maa ngi janoo laskan ariyaan si li baar amba ma ci doom bilaay ñun nga ñëwul soodaan si li baar amba Ousmane jange naan pare leen gaaw sappe leen ñu julli fadul jaamiyo bi ñëw na bàyyi ñun nga ñëwul soodaan si li baar alama nit ña danoo dama kontaan ba janoo jëmmi pey ba elimaani malaw laala sidi baar amma futuati lama bi bi nas baay gën ci doom bilaa ñu la ñool soraan sidi baar amma wa insaanu kaamil ba kabare taxaw jublu penku ma ngay sawe mul koog malakoot baay baar amma murtaati amma biiñas baay gën ci dam bilaay nga ñëwal soo si di baar amma fa insaanu kaamil ba sëlmale ba ne bëre taxaw jëmmam jaamati jël malakoot baay baar amma murtaati amma biiñas baay gën ci dam bilaay ñun nga ñëwal soo si di baar amma badri samaan bañas jaaxal nga mul koog malakut tijjil nga ñi babalool yaa sidira amma baay gën ci doom bi laa nga ñool soda sidira baa nga yot téeram ba saaba ya teew ma ngay xutba malaw a sidira amma futuwaati ramandi bi ñas baay gën ci bi laa ñu nga ñool soda bi ñas leeral nga mul koog faati ahmadi wi ñas ay ganti doom bilaay ñan nga ñëwal soodaan si baarama badri samaan bi ñas leeral nga mul ko malakoot nga ñi babaloon si faati ahmadi wi ñas ay ganti doom bilaay ñan nga ñëwal soodaan alam atam gis naa ci karaama may am si baarama faati ahmadi wi alam atam gis naa ci karaama yu for alamul xay tax na may em sidima amma fulaati amati bi ñes gën si dam bilaay ñun nga ñëw sa daan siriwaar amma barama dëj mi orlo say cëmul ku laa la montre bu dox yaa ko si dam bilaay ñun nga ñëw sa daan siriwaar amma seydi baram noon gaañi wedde laa de may waar siriwaar amma yow ma mi ñes bàyyi gën ci doom am na couleur bu cuub asamaan si ba mu mel ni bleu si rubaa nga ba oo bu la ma bi nga ñëwal soo daan si ni am na ceen gu sax ci xolu jaam yi jar ci dënëb xur bu montar bu koy doxal moo di bàyyi baama bu montagne bu mag ba ca tundoom ci réew mi lay ku fa taxaw xam ne dooma suy maama bu tooti la ma diwi ñes bàyyi gën ci doom bi laa ñun nga ñëwal sa naan si waarama tund ak tampondi nga ku fa taxaw xam ne mbaay du maas tampondi nga doy na kéemaan bàyyi maama bu tooti la ma diwi ku fa taxaw xam ne baay du maas tamponi nga doy na kéemaana si di bara may ba rëbbu ya dabee na lañ fetal rab yi ndax ñu fetal rab yi ku ne doo si di bara may ba rëbbu ya dajee na lañ fetal rab yi ndax ñu fetal rab yi ku ne doo sidi bara am maay bërëb bu ye dajee na leen jafal dun wi ndax ñu fetal rab yi ku fa taw xam ne doomaas sidi bara am maay ba mbër ma yëngoo daldi tudd yàlla garab yaa ngay buuru ninki nanka may la àndal sidi bara am maay nasaraan bee gën a bëri seytaane ak lu muy jeex dafay muslu seeti volkan Seydi Bara amay doju volcan képp ku fa dem himu ci mbiram yàlla bara mang fa garde kéemaan Seydi Bara ca biir doj woo saxaar samuy fiim sirru baa Bara amay la day yëngoo ca biir doj woowa saxaar samuy fiim sirru baa nga boo malakoot si di bara am maay am na doj wu nekk dëkk Banjul ñu naan ko munki koot bara ma fa ceene ay gaay Seydi Bara ma yooyu la gaay dañ may samandaay gaay ñi de ci kufru linkar yi daan weddi suñ baay Seydi Bara amaay ku bokkoo gu njur jëm si boppu jeere danga ragal yàlla ñana wër dóor doy na kéemaan Seydi Baraamay yem na karaama juñ amalee dóor laa illallah keliman kan góor ñi bokkuñ Seydi Baraama keliman kan keli góor ñi bëri bokkuñ Baraama doomaas yoonu ninki duñ ci feexlu Seydi Baraamay bintañ mboloñ géeji mañ samba ku fa dem im yàlla balaa fa garde kéemaan li bara am nay nin ba ca booru géej ga dafay këppu gaal noxem ga lay suuxalee si di bara amma noxem balal ca biir géej ga dafay gasi teen moomu la jaan yaa ko màggal bàyyi moomu la xeew xig na maqaama baraama ko jës héegal ko ci ninki nanka sidi baraamay boode jàll ci biir tinkañ ba janoog balaa samba ndox ma dafay mel ne dal def sidi baraama bàyyi sa jëmmi saayiri jig feeñoo moom la ñemee xool baatin ba mu garde malakoot sidi baraama futanti lahmadi bi ñes baaye gën ci doom bilaay ñun nga ñëwal sóoraal na bara jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf bàyyi boobu jërëjëf euh, soppe yaa ngi dugg fu nekk moo xam ñoom oustaz euh, Makhtar Cissé euh, nekk sa jaxaay ñi ngi koy siyaare bu baax ñi ngi gis seeni message bu baax a baax ñoom daaw da mu bàyyi am ñoom ñëpp ñi ngi leen di siyaare ñoom papi gars yu baax yooyu nga xam ne ñi ngi toog si tele yi di ñu suivre boobaak léegi ñi ngi gis seen réaction bu baax a baax si góor gu tedd gi nga xam ne moom la ñu invité tey euh, ñu fas yéene waxtaanee waxtaaneek moom rek si jëmmam euh, waaye digganteem ak carrière am ni mu ko defee sa Kaolack waaye ñu mu ko ñëwee fii Ndakaaru xam naa euh, foofu la ñuy tëjee si ni nga nekkee Ndakaaru daanaka day faral ñuy faral di gis Kaolack ngay ëpp li ngay jógee ñëw Ndakaaru amaana ñun benn yoon lañ tasante ak yow si benn si bâche muy bâche bu am boobu noonu nga def fa lu am solo wax dëgg yàlla ñu la siy sant bu baax tey ñaan euh, baat bi yàlla na gën a wér euh, xam-xam yàlla na gën a ubbeeku euh, xol bi yàlla na gën a yaatu ndax wax dëgg yàlla li ngay def nii ndaw lislaam nga koy defal diine ji nga koy defal ñun amuñu ñu dul yéen ndax fu ñu leen soxlaa ngeen bàyyi seen yitte ñëw déplacé yi ñëw si ñu kon loolu nañ si sant bu baax a baax a baax sànq si njëlbeen wax maa ngi koy wax nee naa am na ñoo xam ne ñun ñoo ñuy jàppal tànk boo tax du ñu tàyyi benn yoon Euh, di leen tudd ndax wolof dañuy wax ñu baadoola rek ngay defal teraanga muy guux li xam euh, ne da koy yelloo ñun nag loolu yàlla bu ñu dal ma koy wax sànq si biir wax mooy Cheikh Mouhamadul Kabir ndooy suñu waay la euh, suñu xarit la suñu kilifa la day sonn si ñun lool lool lool lool lool lool Cheikh sonn si ñun lool lu mu am ak lu mu amul yépp da koy jël di ñu ko defal ngir rek wax dëgg yàlla lislaam gi ñu nekk waaye ngir rek sang Barxaamu Njaay bi nga xam ne mooy sëriñam moo tax mu ñu koy defal kon góor googu tamit lu yell fu ñu toog rek dañ ko war a sant ndax xam naa li tax mu ñuy defal loolu noonu te wax dëgg yàlla ñun ay ndaw lañ ku ñuy jàppale si loolu rek kon foo jàll ñu sant ko kon Cheikh Mouhamadul Kabir maa ngi lay siyaare bu baax yaag sa njaboot waa Banjul yëpp ñu ngi leen di jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax du ñàkk nag bàyyi euh, baay bàyyi bàyyi bàyyi nga mii euh, nga ànd ak moom Grand Théâtre ndax ñoom dañ koy soxla donte ñoom li ñuy def euh, soxluñu si dërëm sëñ euh, Ba euh, Mame Baye moo tax ñu koy def mais day yell tamit ñu leen di accompagner si yenn bërëb yi ndax loolu euh, wax dëgg yàlla récompense la si ñoom ndax ku ñëw grand théâtre mu bégal la bégal soppe yi ba sa xol sedd ah sooy dem nag war nga faa mën a bàyyi dara moo tax loolu il faut que ñu leen koy ñu leen koy ñu leen koy woo ñoom ñu leen si ñu leen siy dimbali bu baax baax bis bi kañ la. alhamdulilah bés bi ñu ngi koy def 30 avril. waaye soo gisee ñu tànn bés boobu suñu xëyee lendemain bi dafay nekk premier mais muy férié fête du travail moo tax ñu jël bés boobu noonu def ko muy bés bi ñu bëgg a def programme bi mooy le trente avril. Mhm. talaata suñu xëyee fet la kenn jàngiwut kenn liggéeyiwut kon ngant dafay dafay dafay dafay dafay denc ci côté boobu. Mhm. askan bi waaw yee askan bi la tudd ñu ngi leen di oo ñu ñëw ci bés bi ñu ngi leen di invité. ci turu Baye Amadou kamara yaa ngi dégg. nga xam ne mooy borom bés bi ku ñëw rek moom nga fekk la si. di invité muqaddam yi Cheikh Ibrahima yi nekk Dakar ak yi nekk kawla fu waay mën a ne. ci Sénégal ak ci àdduna bi boo ñuy déggee ñu ngi lay invité si suñu bés bi bés bi wax naa ne bés Cheikh Ibrahima la wallaahi barki bàññis du politique du business du du utukaayu xaalis du utukaayu daraja. bés bi bés Cheikh Ibrahima Niass la bàyyi moo tax ma koy def bàyyi moo tax ma koy def addee Cheikh ma laa koy def. te xam naa ne ñun ñoo ciy yëkkati ko. Mhm. waaye ñun mënuñoo yëkkati bàyyi. déedéet ñoo yëkkati fayda bi. déedéet fayda bi fi mu war a àgg dafay àgg. parce que mhm. borom moo ko garanti. Mhm. yaa ngi dégg fayda bi yonantu moo ko garanti. Cheikhu Tidiane moo ko garanti. bàyyi Cheikh Ibrahima moo ko garanti fayda bi day dem fu mu war a dem. kon ñun ñuy ñëw jéem a yëkkati fayda bi mooy ñun dañ ciy yëkkati ko. jéem koo defar mooy dañ ciy jubee ndax borom faydu bi ñaanal nañu njub bu yàgg daawatu rabbi an ya umal haddi kullal wara wa yahmaduna shahi su boobaa ñaan naa yàlla sama njub gi daj ba nit ñi di sant sama jëf njubam googu tey moo tasaaroo ku ne xam ne bërëb grand théâtre leneen mënoon nañ fa def yeneen waaye dajee fa tudd yàlla tagg yonantu nga xam ne coow li coow li yonantu la sallallahu alayhi wa moo tax Cheikh Ibrahima wax ne bi kafayka ribhul xalqi turran wa qusruhu wa xayruka lam yalfu la day ina xira ñaari tënkal yonantu mu ne mbindeef yëpp ci lañuy ñuy waaye ci lañuy ñuy perte itim nga dégg na nangul yonantu te bëgg ko ci la kuy ki nga xam ne mooy sangay mbindeef yi damay doomu aadama te mooy suñu maam aadama mu ne bu taxuloon ak leeru yonantu duñ ko bind leeru yonantu ci lañ ko bindee mm-hmm. yonantu moo tax ñu bind ko mm-hmm. kon foofu suñ fa dajee ki ñuy tagg mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama waaye ki ñuy tagg mooy cheikh ibrahima ki ñuy tagg mooy cheikhu tijaani ki ñuy tagg mooy ñi baax ñi àndoon ak ñoom te inde zikri saalihina tatanazalu rahmatu kon foofu jotaayu yërmande la waaye jotaayu leer la jotaayu ngëneel la ku fa ñëw ñu ngi ñu ngi njottu na di nga fa màngee ay leer di nga fa màngee ay njëriñ ñu ngi invité ñëpp képp ku ñu dégg rek ñu ngi lay invité te doon taalibe te doon jullit te doon koo mën a doon rek ñu ngi lay invité ci suñ bés boobu nga xam ne leer ci kaw leer la yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm di gërëm ci sëriñ Cheikh Mohamed Dramé di ko gërëm di ko ñaanal yàlla cooli cooli moom la Baye Ngom nu mu mel rek Cheikh Mohamed Dramé moom moo ko def sama waa koñ xam nañ ma ñu ngi may seetaan ku xam Baye Ngom démb xam ko tey di nga xam ne am na ku ko dimbale am na ku jàpp ci loxoom mooy Cheikh Mohamed Dramé jaar ak man fi mu jaar ak man def ma ni ma def népp lu ma mel rek Baye Dramé la. dañuy dañuy faral ngay déglu dégg ngay wax si moom. waaw moom léegi nag xam nga comme comme comme waa Kër Baye dafa am dafa am foo xam ni. Hmm. ñii faydu sànni lañ lañ nekk. Hmm. ñii nekk si beneen kii bi. Hmm. moom si ban ban ban ban kii la nekk si faydu sànni. ci faydu bi rek lañ nekk faydu benn rek la. Ah, waa faydu moom parce que damay faral di dégg ñu naan faydu Sane faydu Sane du ma comprendre faydu wax faydu faydu faydu du faydu faydu faydu bëri façon waaw faydu faydu rek la nag bàyyi ñaan na ne faydatan suma mhm. ay faydu yu bëri kon faydu moom faydu bëri façon waaw waaye nag faydu la rek mhm. yàlla dafa bind suñ misaalee Cheikh Ibrahima tey mhm. mu doog géej suñ ko misaalee muy géej géej rab yi ne ci moom bëri na waaye ku ñoom melokaan yi seen melokaan yi bokkuñu seen xaal yi bokkuñu waaye ki di tëbb fi ñu naanee di fa dundee benn géej gi la boo ko boo ko misaalee ci courant Ibrahima ju wooy noonu ne Sidi moo de mooy courant courant day maye leer lampe bu fi am leer courant la may leer soo misaalee bàyyi muy courant courant mooy mooy mooy branché kilim bi ci lañ branché sauvage si lañ branché lampe si lañ branché prise si lañ branché si lañ branché matériel yëpp courant moo leen di moo leen di doxal bu nee nag yow kilim nga nga ne sauvage baaxul am na ñoo xam ne sauvage rek leen arrangé nga bugg leen génne ne courant duñ branché si courant te courant moo leen branché <laughs> jafe-jafe day ñëw dëgg la moo tax seedi baraam mooy courant courant mmh. day maye leer mmh. képp ko am leer matériel bu am leer rek courant moo la may leer. c'est yow fexeel ba góorgóorlu ba courant bi la maas rek. Mm-hmm. fexeel ba góor góorgóorlu ba bul doon matériel boo xam ne danga nga ne yëng rek. ñu mm-hmm. tuddee la matériel te branché woo. Mm-hmm. kon doo jëriñ. waaw fexeel am bëggeel te am dëggu. tarbiya xam yàlla li bàyyi indi nga xam ko xam li ko tax a jug nga nekk ci dégg nga ne yeneen yi après yow yow luy coow li bëri bari yëgal Cheikh Ibrahima. yëgal na li bàyyi indi yaa ngi ci su boobaa bu ñëpp àndee damay dégg ci Cheikh Mamadou Maye Cissé yal na yàlla guddal fanam may ko wér mu ne bu ñëpp àndee na yaa ngi ci dëgg àdduna yëpp te ci dëgg xam nga ko boo nee ci dëgg ñëpp ànd na ci fen nga nekk da nga xam ne yow ci dëgg nga nekk non problème na yàlla xam rek yàlla xam gim xam rek doy na wëlis lenn kon fay doongu noonu waaw <laughs> jërëjëf jërëjëf <laughs> jërëjëf daanaka li des si waxtu bi daanaka léegi mu léegi mu jeex ñu si cappaandaw yi ba xam ne tax na da ngay da tëj si kanam waaye man damay tàggatoo bàyyi la nga tàggatoo wala da ngay tàggatoo tëj ak way moo tax damay tàggatoo man bàyyi la nga tàggatoo euh, may siyaare suñu benn xarit boo xam ni moom it euh, mi ngi toog di ñu suivre muy benn hymne sang Barhama Ndiaye jëlaw moom it ñu ngi koy siyaare bu baax di suñu waay di taalibe Mawlana Sang Barxaam moom ñu ngi koy siyaare bu baax mook soxnaam ak njabootam yëpp aas yi nekk fii si kër gi ñu ngi koy siyaare mook borom këram nga xam ne taalibe Baay Ñas lañ ñu bu baax euh, ñoom Modou Diouf siyaare nañ leen bu baax a baax a baax Papis Mbaye siyaare nañ leen moom mi nga xam ne moo nekk si production bi siyaare nañ ko bu baax jox ko wàcc waayam waaye ñi nga xam ne ñooy jàpp si liggéey bi ba mu yebb ku si mel ni nga xam ne mooy mooy nekk si siège bi ñoom Pape mi si son bi ñu ngi koy charré bu baax Babacar tey moo nekk si régie bi ngeen gis réalisation bu am solo bi nga xam ne boobu ba léegi mi ngi koy def moom it a set ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax ak képp koo xam ne personnel ngi koy charré jox ko wàccuwaayam bu baax a baax di siyaare suñu xarit yoo xam ni ñu ngi di ñuy suivre euh, ku si mel ni soxna Faat Fay madame Guèye ñu ngi koy charré bu baax a baax euh, di di ñaareelu Mamadou Guèye DG domaine suñu ndijaay suñu xarit suñu kilifa nga xam ne këram la jóge sànq ñëw fii si télé bi télé bi ñu ngi koy siyaare bu baax a baax moom njabootam gi yëpp soxna Fat Faye ñu ngi lay siyaare bu baax a baax borom yaaja agro business siyaare nañ la waaye la ma la waxoon gisaguma ko ba tey Fat Faye <laughs> la ma la waxoon gisaguma ko de te soxla naa ko trop siyaare naa nag jox la sa wàccu waay yaag sa borom kër gu baax googu siyaare nañ leen bu baax a baax euh, madame Guèye Ndeye Mariam aussi ñu ngi koy siyaare bu baax moom it jox ko wàcc waayam kuy sonn si ñun la gis nañ teraanga yi ñuy defal si julli géeg si lépp euh, wax dëgg yàlla ñun nit ñu baax ñi rek lañu am ñoom ñooy sonn si ñun moo tax ñu leen di siyaare day yell si ñun euh, maa ngi lay siyaare bu baax madame Guèye Ndeye Mariam euh, wax dëgg yàlla jàpp jàppandil nga lépp lépp lépp lépp si julli gi moo tax ñaanal nañ la gudd fan bu baax a baax a ak képp koo xam ni mi ngi saxoo 7TV incha allah ñu ngi lay siyaare te jox la sa wàcc waay xam naa nag retour jataay bi rek werekaan yi beneen facette dinañ ko indiwaat ndax dinañ def boo xam ni euh, dootul nekk sax toog rek si biir kër gi def émission waaye dinañ génn si rukrukaan yi si biir koñ yi si biir kër kilifa diina yi fekk ji leen indil leen jotaay werekaan yoo xam ne 100 pour cent lay doon suñu paree dañuy ñëw taxaw fii ñun kese taxaw ak askan wi euh, wan leen lan lañ jëlee si kër yooyu noonu te it dañ leen defal yoo xam ni ay clip lay doon yoo xam ne dañuy ñëw rek taxaw clip rek la ñuy sélectionné di ko di ko chaque année ñu changé indil leen facette yu bees te wax dëgg yàlla indil nañ leen émission yu bëree bëree bëri yoo xam ne war nañ ko mën a def fii 7TV xam naa dinañ du ñàkk comme li ñu si waxtaan ak kilifa kër gi dañuy bàyyi rek suñ ko validé incha allah rabbi ñu defal leen ak yooyu parce que nit ñi dañ koy soxla nag dem si kër kilifa yi seeti leen indil leen ñu waxtaanal waxtaan ak ñoom fekk leen seeni i njaboot si karamu taalibe yi ñu waxtaan ak ñoom moo xam murit bi moo xam tiijaan bi xam xaadir bi moo xam laayan bi euh, kenn ku si nekk biir këram ñu xam yan secret maanaam la sëriñ bi nekkee foofu noonu yi nga xam ne yow lay dimbalee taalibe yi day yell taalibe yi di ko xam moo tax euh, ñu ngi koy ñaan personnel 7TV bi yépp ñu gunge ñu si suñu concept bu bees boobu incha allah rabbi baaj ñu bàyyi la nga tàggatoo ak spectateur 7TV yi waaw alhamdulilah Moustapha ñi tàggatoo di gërëm rek ñi doon seetaan di ñaanal yàlla di oo nit ñi si suñu bés bi ñu ngi si insisté na ñëpp ñëw di gërëm balaa ma sori ma gërëm ñi ma toogal sama rakk yi nga xam ne ñooy ànd di à ñëpp ñu ngi leen di gërëm waa jaxaay yëpp gërëm suma yaay nga xam ne yaakaar naa mu ngi ci télé bi di seetaan di ko ñaanal fan bu gudd ak wér ak sama mag Malick Ngom sama mag Kiné ak suñu waa famille yëpp mhm. ñoom Abou sama frère naa mu ngi ci télé bi toog di ma seetaan ak sama soxna yi su Mbaye ak Marème ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla di wax ne ñu ngi gërëmaat Baye Am beneen yoon Baye Amadou Camara duñ dal di ko gërëm ñu koy ñaanal yàlla mhm. fan bu gudd ak wér mhm. yàlla na ko yàlla kàttanal mhm. ci zaahir ak ci baatin di gërëm sama sëriñ Cheikh Mohamed Dramé beneen yoon moom it yàlla na ko yàlla may fan may ko wér di ñaanal yàlla bés bii ñoo xam ne moom lañ jublu képp ku ci bëgg a ñëw rek yàlla na la yàlla indi ci jàmm ku ci bëgg euh, ñëw yàlla na la yàlla indi ci jàmm ci bëgg a ñëw yàlla na yàlla indi ci jàmm nit ñi dem ci jàmm. ñëw ci jàmm. di wax ne waa al yu maa ngi leen di invité yéen ñëpp na ñëpp ñëw Baye Ousmane Dieng ren ci parrain yi la bokk li de kon kenn waa al Ousmane kenn amu ci ngànt yéen ñëpp na ngeen ñëw. si moom it maa ngi koy gërëm bu baax tey rek ndeysaan ku baax yëgalu ko sax waxagu ma ko sax jotaay bi yàlla xam na ko waaye ni mu koy fugloo. ak ni mu koy publicité man daf ma tey daf dama yaram dafa sànq damaa seetaan léegi benn vidéo muy oote ci bés bi koo xam ne oogoo ko te kilifa la kilifa la mhm. nga de waaye dafa am xam naa man bët bu mu ma jàpp ak bët bu may xool parce que te xam na ne taxawaay bi ma yàlla def ci biir kër al Ousmane yu moom xam na ko moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla may ko wér mhm. waaye Ousmane Dieng it yàlla yàlla guddal fanam may ko wér dégg nga de ba fu mu bëgg a mission am mhm. yàlla may ko mu mun ko fa àggale barke Cheikh Ibrahima ñu ngi sant daal ñu ngi gërëm di gërëm sama sëriñ duma ko fàtte gërëm sama xarit Cheikh Mame Alaaji Niass nga xam ne moom mooy taxawee bés bi moo Aliou Harachim ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla tawféex yàlla may leen tawféex bañ fekkee bés ñu ngi gërëm ñëpp daal képp ku ñu fàtte rek waaye sant nañ képp ku ñuy dimbali ci bés bi rek bi lay sant ak sama xarit bu jigéen nga xam ne day sonn ci bés bi mm. ma koy beral ngërmaane bu bés bi xasee ñëw dootul nelaw. day wax rek day wax rek. <laughs> léegi su ne soo demee envoyé na ma téeméeri message. <laughs> pour li ñu war a def si programme bi kon Mata ñu lay wax mention spéciale. Mm-hmm. yal na yàlla yokk sa liggéey. amiin yokk sa xarañ. barke Cheikh Ibrahima. barke Fatiha salaatu Fatiha. amiin alhamdulilah rabbil alamin bàyyi xam naa di ñu ko tëjëlee ak salaatu fatiha incha allah rabi euh, programme bi le 30 avril lay doon incha allah rabi foofu sa grand théâtre mise à place bi nekk 20 heures entrée gratuite lay doon euh, kon ñu fas yéene dem euh, dundal yonent bi foofu noonu incha allah rabi foofu sa grand théâtre le 30 avril incha allah bàyyi démb si ñu koy siyaare moom it bu baax a baax moom it day sonn si nit ñi bu baax a baax di xaritu bàyyi am moom it baax a baax a baax a baax man na naa leen jox dig daje àjjuma ak jàmm seen beneen numéro si jotaay Wérékane ñu ànd fekk waa kër njabootug Serigne Babacar Sy gi euh, Serigne Mbaye jiite ko waa Nande incha allah rabbi dinañ fi ñëw àjjuma bàyyi tëjal ñu ak salaatu faatiha ñaan salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa آلي حق قدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما وقناس بالأقبل والهادي إلى صراطك المستقيم على